Uh-huh. di ñaanal rek. di xorom. maanaam lan. di xorom. di paasa naan ko. démb dagg naa visa ba doyal ñu baal ma si wax ci du samay jëfi de waaye. démb daal xam naa ne sénégalais yi moom buñ la ko waxee buñ la ko waxul waaye jàppal ne ku nekk daggal na. ah démb. démb xam naa ni sénégalais joxe nañ duuti gu bëri nguur gi fi nekkoon. bari na de joxe passeport ñiy joxe seeni visa waaw ñii kay suukar nag mu saf sap ñii xorom bu mu saf sàpp ay Macky Sall waaw Macky ñun lan lañ ko def ba mu war ñoo teg lii ah xelu xale ko jàpp rek maa ngi dóor a gëm woyu baay bàyyi maas ba lu hmm. ma wax dee nañ bu yàgg bi mu naan ndaw la lu dem hmm, naw dee ne ndaw fu ñu jëm nañ leen ko ñaan mais ñun ñun ay ndaw yu dem nañ <laughs> dem nañ kay. ñun bi ñu dund boobu ak tey mënoo dajale 1000 francs 2000 pour que yor ko day jafe pour chaque jour sax nga xëy ci paas dafay doon lu metti nga xëy un bon jour ñu ne la war nga fay 900000. barki Serigne Touba. 900000. te boobu bu nekkee fay 900 même liir yi bébé yi ñu soo ko judd. yow lan moo nekk sa compte. daaw daaw daaw te tey lan xaaral ma xool 27. te xam nga boo déggee le 27 mooy weer bi fi ñu toll nii. loolu de Sénégal de instant ma ne leen na xal nañu dem kaw Kaolack jëli xorom ba fa ne jël Lac Rose doy caaxande ñii ñii foo mën a wutee xorom wuti ji ko ah. man si laa nee naa la démb waaye ji ma toogaloon mm-hmm. jékki-jékki ne ma ne man na xaw ma woon nii nga mel ma ne ko aw nu may def kat ah lii moom wax dëgg yàlla moom c'est c'est c'est trop 900000 déet yéen taxaw leen yow yow waxi 900000 ngay wax <laughs> mais yéen li xew si réew mi yéen yëg ngeen ko. non li si xew moom di si ñëw yaatal ko toj toj ko tasar ñëpp a dégg mais man daaw de fu ma waxee man Sénégal kenn ku nekk. pour bor bi nu fay ko. il faut kenn ku nekk fay 900000 man looy sam problème. maanaam xale yi juddugul sax dañuy fay ñiy juddugul dañuy fay. la ilaha illallah ñu ñu ko teg lan ñan ñoo ñu teg neuf cent mille yooyu ah. eh, avec ça ngay dégg maa ngi xaar ba benn ñu naan ay societé civile wala nit yi toog fii wala maa ngi xaar ba kenn dem ci sëriñ tey ñi dinañ dégg dëgg en fait man depuis hier man doy caaxaan mhm. euh, dama ne démb avant ñu tàmbali ma ne benn kilifa bu ma liggéeyal ma ne ko est-ce que tu sais ñu tànn le 26 septembre du hasard. <laughs> xamuñu dañoo nekkoon ci tiis 22 ans yoo xam ne dañ koy dund ci naxar. li gën a maanaam li gën a métteegum ci réew mi ñi ñàkk seeni bakkan. Uh-huh. mais Macky Sall tegaat nañu démb bato la joolaaloon mais Macky bato Sénégal la teg. suuxal ko Macky suuxal na suñu réew. makki lu tax nga def ñu lii makki lu loo ñu iñaanee Macky loo ñu soxoree hmm? Macky wax ma lu la neexul ci réew mi ba nga def ñu lii Macky ku la tooñ. wax dëgg yàlla. Macky ñun lañ la def Macky ñun Macky teral nañ la. def na ko dara. Macky da nga doon luwe xam nga xam nga béyër Macky yàgg ngay jël car rapide Macky Macky yàgg ngaa lekk def maafe maçon. Macky yàgg ngaa dem kolobaan jënd ñaw lu ñëw. fëgg sol Macky yàgg ngaa wax ki sa copain loo may jox ma téye waaw man kii yow yow benn dong yow nekkoo buur yow nekkoo ki fi ëpp xam-xam. Mhm. Macky yow ñu teral bépp teral. billaay Macky ñu def la maire def la directeur. Macky def la ministre Macky def le président assemblée nationale Macky def le président de la république. loolu rek a Macky ñu ne la yow 1960 nga judd après indépendance ñu ne yow la ñu yaakaaroon Macky kenn mësu la fee xas. Macky kenn mësu la wax wax ju ñaaw. Macky kenn jéemu ne xool yow fii nga bokk wala feneen yow Macky ñu teral la Macky luy teraanga ñu jox la ko Macky nga ne yow daal bëggoo ñu dag ñoo toroxal. tooñ na loo de. kii dafa ñaan nga naan ma tooñ nañu non non. di nga non non Macky ñaan na Macky soxar na. <sighs> waaye ñun Macky ñun luñ ko def. wallaay defu na ko dara. defu na ko dara. laay mënoo leen comprendre mënoo leen comprendre. parfois tu sais yàlla baax na. yàlla baax na yàlla baax na. ah yàlla na yàlla may xolu muñ. te bor bi yàlla ku nekk am 900 millions ko fayee. daal alors nu nu nu dugg ci waxtaan bi nu gën ko yaatal comme euh, ni ma ko junjee léegi nu dooree ak euh, conférence de presse bi nga xam ne gouvernement bi amoon naka naka démb euh, kii di première ministre mu ngi xamal ni ci wàllu bor daanaka ci atum 2023 Sénégal waroon na àbbalu tolloog ci 605 milliards boo xam ni euh, pour 2024 la waaye daanaka loole utilise nañ ko ca li nga xam ne nag moo di ca euh, euh, jamonoy mille 2023 maanaam un emprunt de 605 milliards dépassé en en en avant tey jii nan nga mën jàngatee mbir moomu. jërëjëf Sylla si kàddu yi nga xam ne moom nga laajte xam nga démb. Euh, gouvernement wu Sénégal dañoo génn def li nga xam ne moo di euh, conférence de presse. Uh-huh. Euh, naam dañoo seetlu ne ay nit bu ñu leen tabee war nañ def état des lieux. Uh-huh. ngir ñu xam lan lañ fi fekk fan lañ bëgg a dem. Uh-huh. nga dégg ne dañoo génn moment boo xam ne am na Ousmane Sonko lu ñu doon jaay. moo di qu'importe réew nu mu mënti mel réew moomee war nañ ko mën a redresser ci lu mu gën a gaaw nga déglu. Uh-huh. bi ñu jógee ci réew mi dafa Macky nga dégg réew mi dafa Jomaay nga dégg ci réew mi askan wi walla ñenn ñi nga xam ne dañoo jóg pour opposer wu pour opposer wu rek. Uh-huh. ñu ne projet moo amul dañoo jox ñoo xam ne xamuñu walla mënuñu walla xamuñu fu ñuy taxaw. Uh-huh. léegi nag ñooñu bi ñu ñëwee ñu ne naam bëgg nañ liggéey te am nañ yéene. waaye yéene googu liggéey boobee pour mu am dëgg-dëgg. ndax fekk nañ fi réew moo xam ne war nañ ko mën a teg ci raay réew moo xam ne bu ñu ñëwee dinañ ko liggéey mu gaaw. Mhm. li Ousmane gëmoon mais Ousmane dafa am loo xam ne dafa gëmoon ne si réew bu ñu amee ay njiit. Mhm. malgare bu nekkee yenn luubal sax am na. Mhm. réew moomee war nañ koo teg lu mu gaaw gaaw war nañ koo tegaat si raay yi mu dem. mais Ousmane démb dafa comprendre leen mooy li ma la doon wax. muy ñi ñu jiite. Mhm. walla ma waxoon ko fi avant-hier bi fi Samuel nekkee. Mhm. weesu nañ sàcc suñu alal ñoom da leen di jàppe benn golo bu dugg ci tool. Mhm. bu ñëwee du xool ba gën a neex mu lekk ko dem ko waaye du lekk waaye jàppal ne danaan boroom tool beew bee ju jëriñu dafay yàq lépp. ñi fi nekkoon pendant douze ci li gouvernement bi wax mooy. te démb lépp ñu teg ko si wàllum finance Ousmane Sonko nee na. dañoo fekk réew moo xam ne dañ ko yóbbu si quatrième sous-sol maanaam réew moo xam ne tey jàppal ne. du ma ne defar ko dina yomb de mais ça sera très très très difficile. Ousmane yëkkatiwaat ay kàddu ne jàppal ne ñooñu. luubal nañ ci alalu askan lu toll ci cent cinq milliards yoo xam ne utiliser nañ ko ci conte yoo xam ne kenn xamul fan la jaar uh-huh. ñu ne la gouvernement googee di Macky Sall moom ak ña mu nekk lool pour ñu am ay fonds pour ñu jox leen xaalis pour FMI teg leen euh, doole leen keneen jàppal ne dañu doon créer di chiffres yoo xam ne sax chiffres yooyu amul ay chiffres pour mën a jot xaalis maanaam au delà liñ leen tab mhm. ñu ne ñu li nga xam ne moo di mbir mi yegg na sa cinq pour cent jàppal ne nakate au delà dix dix pour cent la toll woon Ousmane ñi mu àndal ne yemuñu foofu. Mhm. li waral neuf cent mille kenn ku ne yi mu war a fay. Mhm. Macky Sall moom ak ña mu àndaloon dem nañ lépp si ndodd Sénégalais yi lu toll ci un milliard huit cent. un milliard huit cent yoo xam ne. kenn gisul kenn xamul fan la jaar. Uh-huh. yemuñu ca ba tey waaye ñu ne la uh-huh. si wàllum secret défense ak la ca jëm ak yooyu jàppal ne def nañ ca koppar gu bari goo xam ne sa waay yow da ngay posé ni ñii kat loole fan la jaar. Uh-huh. lii nag lañ ñu wax li nga xam ne moo waral neuf cent mille yi si ki ki ñu doon expliqué mu leer mu ne ñu. fi ñu toll nii nii nii bor boobee pour ñu fay ko bu ñu boolee population wu Sénégal ak ñi nga xam ne sax dañoo war a juddu comme xale yi. Mhm. kenn ku nekk foog mu def neuf cent mille pour ñu fay ko. man moom aw ma ko. maanaam mhm. réew mi ñu nekk di dund nii defar ko dina jafe loolu. Mhm. réew moomee dem na sax ci boppam. ñu démb li ñu dégg nit ñu wax ko. Mhm. bu ñu xefulee ñenn ñi sax duñu am fitu ñëw ci réew mi di fi di fi di fi investir. Mhm. ndax la réew moo xam ne ci wàllum koppar dëgëratul. mais réew moomee jàppal sax dans peu de temps ci nguur gi. Mhm. yenn yi mu mënoon subventionné ngir yërëm askan wi ndax tey liñ fi fekk réew moomee sax jàppal ne pour ñu. subventionné pour ñu yërëm askan wi si wàllum dund gi. Hmm. jàppal ne dans les normes sax waruñu koo def. jàppal ne ñu ne la bourse sociale bi nga xam ne sax daa war nañ koo def ak yooyu bu ñu xoolee li xew dans leen normes loolu sax dañ ko war a dindi maanaam Macky sàll amadu Ba Abdoulaye Daouda Diallo. Hmm. ak Mamadou Moustapha ni nga xam ne moom lañu ñu lebee alalu askan wi seen doodu kenn yëgul xaalis bi kenn xamul fan la jaar mhm. waaye beneen bi jël nañ ay kàddu yoo xam ne dara méngoo ci dëgg créer li nga xam ne moo di chiffre ndax tubaab gi sax ba tubaab bi jox leen koppar mhm. waaye aussi ñu ne la xaalis boobee nga xam ne dañ ko doon jël di ko lepp wala dette bi nga xam ne fekk nañ ko fi mooy bor bi ñu fi fekk jàppal ne bor boobee ci boppam mhm. bor bi ci boppam mën nañ laa wax ne yóbbu nañ ko ci dimension goo xam ne pour ñu fay ko dina metti loole loole loolu mhm. maanaam aussi xaalis boobee dañ doon dem sax ba banque locale yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk jàpp ni nguur gi lepp na leen xaalis jël nañ fa xaalis ni mu leen mhm. neexee mhm. si gàttal Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye nee neen réew mii Bass Macky Sall bàyyi leen. Mhm. nekkul réew moo xam ne pour nga defar ko. mënoo koo defar ci un an mënoo ko defar ci deux ans mënoo ko defar ci trois ans mënoo ko defar ci quatre ans mënoo ko defar ci cinq ans. Mhm. maanaam jàppal ne bu nekkee bor rek leb nañ leb loo xam ne ay réew daanu nañ sax mhm. dañu jël ci exemple Grèce ji nga bor dina am fu mu toll ci réew. jàppal na réew moom day daanu et pourquoi Grèce mënul ba tey dugg taxaw. Mhm. li ko waral mooy seen bor li ñu amee bor bi nga xam ne moom lañu ñu amee moo bëri. moom la àttanul moom la ñu àttanul mhm. ñun ñëpp si bor la ñuy dund. Mhm. et gouvernement bu ne danga war di leb. yow sénégalais da ngay leb. tey téeméeri média boo demee li nga gis yëpp ñu tabax ko samp ko. Mhm. boo xoolee du seen xaalis personnel. Mhm. dañuy leb ay banque pour mën a def. Mhm. waa ji lay romb otom waa ji nga sa këram jàppal ne day leb banque gi. maanaam yàlla moo bindoo ne maanaam ñun pour ñu defar pour ñu nekk wala loo xam ne dañ koy bëgg am mën nañu wax ne suñu koom-koom dëgg mat mateewu ko. mais foog ñu leb di ko fay. waaye aussi. leb boobee si la danga nga war a mën a maîtriser sa dette. Mhm. peut-être man may fayeku benn somme bi du leb loo xam ne au-delà bu weer bi deewee si boppam bu ma fayee ko bu ma ko fayee dootuma dundati weer boobe mhm. maanaam di nga mën a maîtriser sa dette nga xam ne saa sone ne di nga mën a fayeeku nga am loo ca fay waaye ab lu néew nga am loo dese. Mhm. waaye nguuru Macky Sall jàppal ne maîtriser wu ñu seen det léegi nag ñu ñëw après lan moo ko waral pourquoi ñu yegg si fii pourquoi pourquoi pourquoi. Mhm. foofu lañu ñu war a mën a gën a poser li nga xam ne moo di question yi. Mhm. ji nga li xew yépp ki Sall da si am part de responsabilité. absolument tey démb li ngeen dégg ñu doon wax wàllum finance wàllum koppar bi ñu leb et que les duñu comprendre. Mhm. si gàttal si ay kàddu yu ndaw bu ma ko ndaw yu ma ko téye ngeen xam mooy Macky Sall moom ak ñamu nekk loon sàcc nañ alalu askan wi si mhm. loom Bassirou Diomaye Sonko lu ñu wax pour askan wi comprendre ay rapport ngeen doon dégg Macky Sall moom ak ñi mu àndal jàppal ne lépp nañ si askan wi xaalis boo xam ne si boppam xaalis boobee kenn xamul fan lañ koy dugal mhm. fan lañ ko dugal mën nañ jàpp ne ñoom ñoo ko séddoo waaye jàpp leen ne réew mi ci boppam pourquoi saa su ne nit di liggéey weer di fayeeku mënul yor xaalis mënul tabax mënul def dara mënul investir uh-huh. tey li ko waral dëgg-dëgg xam ngeen nekkatee lan la uh-huh. mooy ñañu nekk loon alal bi ci boppam réew mi amatul alal li ngeen dégg naan réew mi dafa jomaay réew mi jomaayul uh-huh. Macky moom ak ñi mu àndal ñu luubal alalu askan wi ndax ndax ndax loo xam ne tey jii dañ ko waroon emprunté pour 2024 ñoom emprunté nañ ko def ko si li nga xam nag moo ci atum 2023 donc loolu tey dina am benn benn inconvénient ci atum 2024 bi lu toll ci maanaam dañu ne. Mhm. dañuy dem élection te bu ñuy dem élection mën nañu wax ne yëngatu mën na am à tout moment. Mhm. te élection mën nañ dem deuxième tour léegi nan la ñuy dem ci période boobee nga xam ne askan wi ci boppam. du ñu liggéey normal ak yooyu. Mhm. ñoom ñu ne dañuy leb xaalis boo xam ne bu ñu demee ci moment boobu réew mi dina mën a stable. Mhm. waaye li ci doy waar balaa ñu dem élection xaalis boobu nee nañ ko tungañ yóbbu nañ ko. Mhm. fan la xaalis bi jaar. ji si la dañu war a jóge ci wàllum def nañ ni xaalis bi nii lañ ko def nii xam nga wax ji mooy. lii Macky Sall def. lañ lañ ko ci mën a toppee. li nekk di xew lan la li nekk di xew lan la. Mhm. ji nga si la. Macky dañ ko war a toppee haute trahison. Mhm. escroquerie. <laughs> détournement deniers publics enrichissement illicite mais yi dañ ko war a toppee li nga xam ne moo dañ leen war a toppee association malfaiteur. Mhm. waaye dañ leen war a toppee li nga xam ne moo di bande organiser wàllum terrorisme ak la ci jëm. Mhm. bu nekkee ne dañuy wër un terroriste. Mhm. terroriste dëgg-dëgg jàppal ne ki nga xam ne moo gën a nekk terroriste wala terroriste économique wala terroriste financier. Mhm. Macky Sall terroriste la moom ak ñamu àndaloon. tey wax ji mënul neex. wax ji buñ ko bay bayloo wax ji buñ ko liiwal uh-huh. euh, xam nga jamono génnee naa la ñii maanaam mënoo leen qualifier uh-huh. ku ñuy tooñ sax kuy dox guddi sax du def lii uh-huh. dox ku maanaam ñu baal ma ci wax ji mais doxkatu guddi sax moo leen tane depuis hier ba tey mënuma qualifier ñii li ñu def lan la lu mu nduru mais nag est-ce que askan wi yéen ñii di seetaan ndax ànd ngeen Macky sàll ñu toppee ko li nga xam ne moo di haute trahison man maa bëgg a organiser pétition bi te fii lañ koy tàmbalee képp ku pare ñu topp Macky Sall haute trahison bindal ne Macky Sall dañ ko war a topp haute trahison ñu tàmbali ko léegi ñëpp xam ne li ñu def ndax naqari na war a naqariwul leen ndax sénégalais pare nañ ngir woowaat ki Sall. Mhm. wax ñu lan moo tax nu mu ñu yabee lan lañ ko def. Mhm. ba mu sàcc suñu alal waaye yàq suñu réew waaye aussi rey lay sénégalais. Mhm. mais Daouda lu ma lu ma xaw a jaaxal ci mbir mi mooy si wàllum euh, euh, secret défense maanaam loo xam tey ji ci wàllum arme lay dem. ñu ngi nuy xamal ni dañ ko dafa nekk euh, bor boo xam ne dañ ko nëbb mu ngi toll ci deux mille cinq cent milliards xam nga toll woon nañ si ay jamono yoo xam ni gis nga arme bu fi nekk. fan démb rek ñu ngi ko doon waxtaanee cinquante quatre euh, milliards yoo xam ni euh, quarante cinq milliards yoo xam ne ci wàllum arme la daa dugg lacrymogène yeeg grenade yeeg oto yi fi doon ñu ngi doon wax. Mm. mais fii dañu xamal ni carrément secret défense et dette cachée maanaam bor boo xam ne dañ ko nëbbal li nga xam ne nag moo di Sénégalais yi toll ci deux mille cinq cent milliards. est-ce que foofu aussi. Euh, xawul indi tuuti problème. mais néew ñu la fii jël nañ fi quarante cinq milliards jënd ko arme. Mhm. xam nga boobu moom peut-être euh, Papa Alioune moo defoon sorti ba sénégalais yi euh,